maa ngi nuyu askan wi doomi lax yépp góor ak jigéen mag ak ndaw waaye maa ngi beral nuyoo sunuy kilifa diine di leen jaajëfal ñoom ñépp ci ni ñu ñuy gungee ci walu xex mbas mi ñu ngi ci rotal seeni kadu di soññ njabot gi ñu di ka rafetlu waaye may euh, nuyu itam sunu jaay kat yi nga xamne ñom ñoo fété ci marché central ak njabot yi nga xamantene ni nii ñoo fay dem di dox seeni soxla ndax lii ñu malkat ñoom ñoo ci ëpp wàll dama ko fàtte def nag ci tubaab waaye dama ko bëgg dabaatal te mooy jaajëfal leen yéen suñu mbokk taskatu xibaar yi sargal leen itam ci seen taxawaay dangeen ñu jege ba mu ëpp ba tax léeg ñu di leen fàtte waaye wax dëgg yàlla yéen ngi ñuy gunge gunge bu am solo suñu baatu kese mënta génn barab bi ñu toog yéen ñuy dimbalee fu nit nekk ngeen fekk ko fa jotal ko li nga xam ne moom lañ ko bëgg a dégtal ngeen di ko def ci kaw pasteef ci kaw bëgg seen réew te laaju leen ci dara wutu leen ci dara kon nag ma bëgg leen sargal bu wér ci taxawaay boobu li ñu sumb nag li ko waral ñëpp xam nañ ko mooy tolluwaayu dëkk bi ci mbas mi yaakaar naa ñun ñëpp xam nañ li xew mooy ne tey fi tey daal dëgg-dëgg feebar bi dugg na lool ci suñu biir mi ngi law bëccëg bu ne ñu dégg lim boo xam ne kenn ku nekk war ngaa xam ne nag wax fa dëgg mbir mi mi ngi ëpp loxo loolu moo tax ñu war a xam ne lépp lu ñu defoon ci taxawaay war nañu ko dolli war nañoo yokk yitte gën a jël suñu ay matuwaay li xew mooy bu ñu seetaanee walla ñu des di bàyyandiku dinañ àndandoo loru ñun ñépp looloo tax nag dañuy gën a fas sunu ndigg lañu jot a def yépp ñu jàpp ne defuñu dara tey nag la mbir mi tàmbali ci kaw loolu démb rekk amoon nañu fii benn jotaay jotaayu yëgoo ak diisoo ndax li nu sumbu dama ko and ak meri bu kaolax dama ko and ak ay service nguur gi police ak UCG ak ASPI, ak service d'hygiène ñu wara lengo ak euh, ak kat yi ci marché bi ak seeni mbotay ngir jekkal suñu toogaay ci biir marché bi xam ngeen ne bi mbas bi tàmbalee rekk ci kaw fagaru defoon nañu lu ni mel te mooy mbedd yi ni mu mel daal dafay jéggi dayoo li fay nekk ci lim ci doomu aadama dafay ëpp na fa nit ñi di toogee itam dafay doon pëccëxoo boo xam ne moom corona lool rekk nag la sawar ngir yàq li muy yàq ñu ne kon faw ñu jekkalaat ndax dafa amoon jamono euh, nit ñi mel ni dañu saalit di wax ne mbir mi tar na nañ teggi suñ loxo kilifa yi natt ko ca jamono jooja it euh, wax ne kon ñu góorgóorlu bàyyi xel ne feebar baa ngi fi ñu jël suñuy matuwaay ngir nit ñi bañ a ci wàllu koom waaye nag dafa xaw jur ben xeetu bayandiku ba nit ñi Pastef bi ñu waroon di def ci li ñuy wax geste barrière yi xaw a sooxe ba rek lañu ca amoon ca liggéey booba ñu fa defoon xaw a sooxe waaye ñu wax ni waruñoo tàyyi waruñoo toqi ñu war a kon def lu mel ne lañ ca defoon loolu mooy dogal bu njëkk bi mooy def benn libération des emprises mbedd yi dugg ci marché bi yépp daal ak la ko jàpp lépp lu fa ne te jaaduwul te warul ñu taxaw àndandoo nag ak ñoom dindi ko ma wax ne am nañ Pastef bi dañ ko fa yéene def ci fulla ak ci fayda waaye itam dañ koo bëgg a def ci teggin looloo waral wax ji sax ngir yëglu kenn bañ a wax ne dañ ma bett walla danoo ñëw daanu ci sama kaw waaye nag luy jot jot na bu ko defee ku dégg kàddu yi rekk te toog foo xam ne du tooguwaay walla nga lalee noo xam ne jaaduwul nga xamal sa bopp daldi dëppoo ak li nga xam ne moom lañu nar a def loolu nag jàpp nañ ko samedi bii ñu dëkkmal ci juróomi waxtu ak ñeent rek dinañu lëngoo ñun ñi ko war a def yépp ànd def liggéey booba su ñu ko defee nag ba pare am na leneen luñ ciy tofal te mooy désinfecter marché bi waa service d'hygiène war a def liggéey booba bu fa doomar jàngoro ba nekkee ñu jël ci ay matuwaay sellal barab bi raxas ko loolu bokk na ci mbir mi waaye am na yeneen matuwaay yu nu jël euh, mën naa ci lim ne dafa am solo lool fim mu ne ñépp kenn ku nekk ngay takk sa mask waaye la fa nekk ci doomu aadama bu fa nekkee nga boole ci nag am ñu tixit ñoo xam ne ba tey jii mënoo wax bañ takk masque am ñoo xam ne sax woo yaay ba léegi tey jii ñu ngi naan feebar bi amul euh, te yàlla xam na ne bokk na ci li ñuy sàmm nangoo takk mask bu ko defee euh, loola am na liggéey bu ñu ci sumboon ci kilifteefu gouverneur fu nekk ñu joxe fa ay masque lu ñu am rek delloo ko askan bi loola itam fas yéene nañu ko def gannaaw bu ñu jékki-jékkalee marché bi ba pare booba ñu jógee itam ca njàlbeen fexe woon nañu ba duggukaay bu ne loolu ñuy wax ay lave nit ñi di ci mën di raxasoo jël seen matuwaay doog a jëndanteeg jaayante am na yuñ ci yuñ ci defoon waaye ci kaw bàyyeendiku bi rek dafa mel ne na mu war a doxee itam mi ngi sooxe looloo tax ñu fas yéene ko dekkalaat jëfandikoo ko ngir mën a sàmm suñu bopp beneen bi nag mooy bi yoon e, dañu fas yéene topp mbir mi gannaaw ci xare lañ ne suñu noon duñ ko may dara dina am benn brigade boo xam ne commissaire dina ka taxawal lëngoo ci ak police municipale lëngoo ci ak asp bi comme ça ñuy top liguey bi bëccëg bu ne ngir xagn ñi nga xamne ñom lool lañ bëgg li ñuy wax dello boom ga ci mboy mboy ga bi yoon mom duñu ko duñu ko maye talay katan dinañ ci taxaw sàmmonteeg lool lool mo doon dogal bu jëk bi dogalu ñaareel bi nak moy xëy na bu ñu ne mbas rek